del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. na Baye Mbaye. Boucher yor ay tablettu nenam. waaw Mara baa ngi noonu di ko toj. mu ngi di toj ne ni. li li lépp li lépp ay tegtal la. Boucher ngi di toj moom tamit. Boucher kër gi noonu. ñu ko doon laaj naan ana Boucher dina ñëw wala du ñëw. Boucher ñëw na gàddu tablettu ne noonu moo koy toj. borom doole xamul naa ko xool ni muy tojee ne ni yaaga yaaga waxal si loolu. waaw bay bay xam nga dafa bari man dama ragal sax balaa ñu koy jugee fii ñu daawul lóor parce que ñaari tablettu nen. nga bëgg a doj ci espace boo xamante ni liiru jaane yi noonu. waaw lu mu daan gis nee na ñu xaatim ko mais nii dama gis ñu koy toj ñii xaatimuñ ko. nen yi moom tëral nen la. nen yi moom kenn xaatimu ko xam naa dañ koo noonu rek ñëw di ko toj noonu rek ay lépp loo gis ci làmb Baye Mbaye ay tegtal la parce que aujourd'hui <laughs> toj na réew mi yàggal. waaw tegtal a ngi fu ne. waaw ngi fépp. mu ngi ci daal. waaw Baye Mbaye. koo boo boobu maa bëgg am jomaay moom moom yëkkatee bale ba moo lay wane tegtal mi ngi fépp bàyyi mel la waaw yëkkati ne ne ñoom ñëpp laay bale tegtal la rek ak boole ak boole ñu daan fëgg moo tax tegtal yàgg na si réew mi loolu suñuy maam la ba jonni yàlla tey mais yàgg ak lu mënti xew daal tey la tey ñaari saama yu ñu boole cey cey bi combat ab la waa Alburax hmm. waa Alburax event hmm. kenn du ñoom hmm. waaw Baye Ndiaye wane beneen façon wane beneen xarkalam liiru jaana yi di génn grand liiru waxuma la dara sax mais kii nii kii nii kii di sama doomu nday kii di Bou ak ak ki nga xam te ne mooy Tapha Gueye yaaga loolu loolu leneen la waaw loolu combat bu neex la Bou Siteu rek ak Tapha Gueye combat amateur bu neex la combat bu am solo la ñëw bàyyi ma gaar yaa ngi noonu. suba teel ku yebu pare. yaa hmm, <laughs> nga xaw ma añoo mais ku yéex oto yi lay bàyyi. waaw bàyyi xam nga taluñu dara ndax añ. parce que gis nga préparation mystique bi mooy nekk noonu di waaj a génn. waaw bàyyi mbay nga laaj ma léegi ne ma combat bi combat lan la. yaa nga may la wala combat détermination waaw mbay combat bi euh, combat li nga xamante moo di technique la ak vivacité. maanaam ku ëpp sa borom technique ak vivacité yaay gagné combat bi Baye May. ku ëpp sa borom wala vivacité yaay gagné combat bi. waaw yaa ko combat bi kon kon doon na combat bu yéeme. Mhm. mais yàgg est-ce que nekku si côté vivacité bi foofu la ëppee yàggal. waaw Baye moo tax ma ne la waaye kii lu mu yor nii bouse kook la yor wala lu yor nii. ma ne la man de man maa ngi fuuta man. bouse kook la yor. waaw kook la yor. kook man maa ngi fuuta kook la yor yor leket. waaj yor benn leket. Mhm. mais mu sukk na bàyyi mbéy. leket gi lu mu def. leket bi soow la def wala lu mu def wala ceeb wala lan la. loolu loolu loolu moo ñu yàgga war nañoo xam lekkat gi lu mu def. waaw parce que gis nañu waa ji ko yor dafa sukk. xale yi ñu raasale. waaw di xëse par benn benn di yóbbu si lekkat gi yàgga. Ah, kon xale yi ñooy nangu ñaan ñooy nangu sarax waaw waaw ah, maanaam dañ lay jox ah, da ngay yéeg nga naan. waaw da ngay yéeg ñu la nga naan. léegi mambulaan la léegi mambulaan. da ngay ñëw na. Uh-huh. loolu leneen la yàgga. waay waay tey bisu leneen na waar yàgga li doy na da ngay ñëw yaa ngi xoolal xale yi tàngal la nga naan nga daw soow la waaw yaa ngi soow la dañ lay jox soow nga naan ndeysaan c'est loolu tey lii lamb rek mën lii lamb rek la lamb lambay boole uh-huh. lambay dajale uh-huh. lamb ngay gis lu ne lamb ngay gis ku ne lamb ngay gis soo tegal bu ne yàgga sarax boo xamante ne dañ ko def ci leket ngeen raa ñu def kook nga ñëw tànk naan. tourné sa lu ni mel. Mm. maa ngay a gis. Mm. sarax bii ak ni ñu koy mm. ak façon sarax bii. yàgg maa ngay door gis. la mbay moo lay wan ni façon mystique bu dee am na loo xalaatul ci réew mi am na. yàgg sànq rek maa ngi naan la ban surprise lañ mën a gis tay si bi. waaw mais surprise yi yàgg bëri na. Mm-hmm. ba ba ay façon surprise yoo xamante ne nii. maa ngay door a gis. mystique yi ma gis mosuma koo gis. ak façon bi ñu koy defee yàgg. waaw ma ngay roose xorom sa rek. xoolal ma lii ay waa jëlee leen ma lii. zumal ma leket bi zumal leen ma leket bi jëlal ma leket bi jëlal ma ko. pare ki kay joxe. Uh-huh. moom dafa toog gars yi tiim ko. Uh-huh. nga muy xëte par benn benn. di leen ko saxal moo lay wan ni lamb rek lu ne ngi ci. waaw waaw. laay bay lamb rek a mën lii. ku yóbbu waajal sa bopp. ku yóbbu waaji de ndax bés yu mel nii. Ah. boo ciy dem. waaw war nga mel ni ñoom. yàgg nga ne lan. waaw waaw. Ah, yàgg li ma gis tiit naa baay bay mais mais tamit kenn toogul. Ah. Pikine Pikine ñëpp. waaye boo demee mu gisee boo demee Pikine tey jii. Mm-hmm. yaakaar naa ne. li nga gis fii. li nga gis lu waaw ndax ndax ndax combat bi. Mm-hmm. moo nekk combat boo xam te ne nii. dafa jaral ñaari secteur yëpp. waaw Pikine nee na du ma leen ko bàyyee. Mm-hmm. Euh, waa Guédiawaye tamit. ne combat bi duñ leen ko bàyyee ndax combat bi mooy suñu daj dëpp. loolu nag du yomb yàgg. waaye mbay moo tax ma ne la combat bii. combat combat vivacité la waaw ak technique. yàgg boo jugee foofu. Mhm. ñoo si ne combat bii. Mhm. combat confirmation la. Mhm. ndax tey kii nii nii kii nii dem seen. daan na Balla Gaye 2. waaw Sa Thiès ñëw. mu a ko seew laa confirmé ni. yéen ñëpp man maa leen mën. seen waa équipe seen famille yëpp man maa leen mën. Sa Thiès tey jii ñëw taxaw ne ko carrément sama mag nga daan. daanoo ma ñëw ma jëlal sama mag revanche ndax daanoo ñëw ma jëlal keneen revanche comme man fi ma yegg tey jii bari bari ak yow sama njàmbaaram ko yeggale ak sama fit ak sama jom dañaa ñëw daan la jël la bu ñëpp di werante jël bu ñëpp du coow te fay du si am dara du si am dinaa daan avec la manière Sa Thiès tey loolu la indi moo tax boo xoolee bu mu ñëwee ba léegi yaa ngi gis oo calme calme yaa ngi gis fépp fii yëpp calme nga gis gars yi di gas suul glace gi gars yëpp woote jàmm la paix mais yàgg bu ñu demee ba si diggu géew ga lii di respect bu Eumeu jox Sa dina dañ foofu lii di respect bu Sa Thiès jox tamit Eumeu Sène Eumeu Sène respect bu mu jël jox Sa Thiès dina dañ foofu foofu respect amatu fa dinañ bëri si avec la manière ku daan nag bu ñu paree ñu dellu si luñ nekkoon mais yàgg bis bu ñu tëjee barrière ba mu ñaari mbëri. wóop wóop wóop wóop wóop wóop. Baye Mbaye. bu boobaa di nga gis lu bare bare bare bare bare bare ndax combat boobu noonu li ma la ci mën a wax mooy dafa nekk un combat boo xamante ni la dafa nekk combat boo xamante ni combat de technique la dafa nekk combat boo xamante ni ah. combat de vivacité la dafa nekk combat boo xamante ni ah. combat de rapidité la Baye Mbaye parce que la rapidité de de Sa ah. il donner tout waaye son rapidité mën na ko xañ lu ne waaye le technicien le technique nga moom la Eumeu Sène am. waaw mën na ko may lu ne. waaw waaye ko xañ loolu. yàgga Eumeu Sène mu ngi koy xañ loolu ne ko vivacité boobu noonu. boo ñëwee si man man maay man maay ki lay freiné. ndax maa freiné sama Balla Gaye 2. kon yow mii doo ma jaaxal. waaw Baye Mbaye. waaw waaw Baye Mbaye mi ngi noonu boobu ba léegi ñu ngi waaj pour génn. waaw di def dernier réglage yi. waaw ba yàgga ba tey dañuy ñëwaat sarax bi. xale yi ba léegi ñooy tànk di naan te lu gën jaaxal ne ko dañ leen tànqale ñoom ñëw ba si lekket gi tànk naan teg sa morom ñëw tànk naan yàgg loolu yéeme na yàgg tey lii làmb rek. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Feeling Dakar. plateforme d'information